salaamaaleykum euh, àdduna waaw maa ngi tudd Cheikh Sarr nekk artiste comédien dëkk Pikine euh, ci ci commune bu ñu naan Djiddah Thiaroye Kaw. waa série xel ñaar nag li ma ci dugal mooy que. Momo Saliou dafa am euh, projet bi am concept bi woo ma sentir ma ci pour ñu ñëw liggéey parce que moom sama sama sama sama gaañ la sama frère la. su ma woowee ci liggéey boobu noonu en tant que en tant que comédien damay ñëw participer parce que tamit li may doyee loolu laa koy doyee quoi te dañuy liggéey man ak moom. double personnage boobu noonu euh, moom moom moo ma ko forcé bi ma ko forcé en tant que en tant que artiste en tant que comédien ma gis ne mën naa kaa def parce que sénégale yi ñoom ñëpp ci benn ci benn ci benn personnage rek lañ ma xamee pourquoi pas César en tant que jeune euh, mu proposé ma loolu ma gis ni loolu mën naa kaa def. ma def ko. ban séquence bi nga boo xam ne moo la gën waaw mooy séquence bi nga xamante ne nii euh, mooy njambaan bi njambaan bi marqué na ma trop njambaan bi marqué na ma trop euh, parce que njambaan bi bi ma koy tourné ak sama jarbaat bi naan Seyni dama kaa yëg wax dëgg yàlla dama kaa yëg sa parce que euh, bu ngeen seetaanee ci image yi da ngay xam ni kii mi ngi joué un fond du cœur parce que duma ko yëg daal. séquence boobu noonu marqué trop trop trop trop wax quoi par rapport série ñuy comédie drame suspense amour ah sénégalais rendez-vous banlieue production ah, euh, site internet bu mag maison de production bu mag que. wax dëgg yàlla barki démb moo njaay lañ fi def lu kenn deful kon tamit foofu dafay dafay dafay jar ñu xaar ko ah ñun ñëpp ñu dem ñu yokk abone yi parce que su ngeen abonné wul du ngeen seetaan xel ñaar kon dem leen ngeen abonné ji ñu xaar xel ñaar salaamaaleykum man la Amina Rasoul actrice présentatrice euh, management femme leadership xel ñaar nag moomu Saliou moomu ci moomu ci intégré bi ko ñoo bokk benn boîte bi ñuy liggéey muy xel ñaar maa ngi ci porté benn rôle bi nga xam ne euh, ben c'est une jeune dame voilà pleine de pleine de jeunesse am aussi avenir bu bu prometteuse voilà mais ma am benn góor boo xam ne marié na ma sans que ma am ci consentement bu naturel quoi. séquence bu ma ci marqué mooy euh, bu may bu may xëy sama sama sama borom kër di ma di ma di ma laaj pour waa koñ bi na laay dundee sëy bi ak moom ba may jooy gis naa si ay njëriñ yu bëri aussi y a beaucoup de leçons à retenir message yi aussi jàll na bu baax a baax te les acteurs aussi ont assuré. di wax sénégalais ñu xaar ko rek à travers aussi euh, banlieue production di leen remercier aussi ci liggéey bi voilà di xaar xel ñaar moom dañ ko accueillir au bras ouvert te xam ne doy waar la na la doon. maa ngi tudd Biram Gaaj ñu gën a xam si Bili dëkk Géejawaay. waaw série bi di xel ñaar lu mu si dugal mooy je pense que Momo Saliou mooy scénariste bi ab si lu ko joxe sama photo ne ko. kii ni mën a bokk ci série bi Abou Sélé moom moo Saliou contacté ñu waxtaan Abou Sélé mu expliqué ma war a tourné man tamit bi ma jàpp war naa ko mën a assuré ma jox sama accord. rôle bu may porté maa ngi si tudd El nag nekk na nit koo xam dafa demoon tukki bàyyi woon fa ak benn copinam léegi ba mu jógee Séré ñëw Sénégal c'est le fekk copine bi benn pas takku ko. ko nag du ma bàyyi. quand je battre je ne perds jamais je gagne a neex série ba ma ñibbisee ma dem ak ji meer amem maa ngi ñu tegoonte bi ay kàddu yu saf. li may wax sa Sénégalais mooy nan xaal série xel ñaar parce que nekk na série boo xam ne dafa doy waar ku dégg xel ñaar rek yaa ngi xalaat say xel nu muy demee dina wax ne daal dina neex dina tàng safa sofee. maa ngi tudd assan Gueye je acteur maa ngi dëkk Guédiawaye. série bi xel ñaar euh, scénariste bi Momo Saliou moo gis sama profil mu wax ko Modou Gueye Modou Gueye woo ma wax ma ko. man am na problème na ma def signe après moom moo def ma signe euh, ñu déggoo maanaam moom mu envoyé ma rôle bi ma war a joué ah bon ma gis sama bopp ma d' accord. sama personnage mën naa ni euh, personnage bu bandi la bandi boo xamante ni kat bon li mu nekkee mën naa ni dañ ko teg dama nekk ak sama yaay ak sama euh, sœur sama yaay jël alalu kër gi jox sama sœur sama sœur voilà def ci li ko li ko neex loolu métti ma lool lool ba ma raar kër gi. séquence bi nga ba nga gën a nag mooy sama relation ak euh, sama gel bi ñuy wax tàkko mooy première fois ma ko gis euh, fële mu toog moom kese xam nga jigéen warul wéet comme on di mu wéet toog sëngeem moom kese xam nga ma fekk mu toog vraiment ça m'a beaucoup marqué quoi. Serigne Xel Ñaar li ma gën a neex si sama àdduna mooy éducative loolu lay wax maanaam day jàngale. day jàngale wanewul bling bling wanewul lii li wane mooy jàngale ci fànn yëpp nag maanaam foo foo foo ëpp rek foofu mën ngi si jàng lu bëree bëri kon nañ ko xaar ci chaîne bii di Banlieue Production. salaamaaleykum maa ngi tudd Fatmata Bari ñu gën ma xam ci Fatima maa ngi dëkk Touba. xel ñaar maa ngi maa ngi ci nekk benn xale bu jigéen bu impoli sama yaay laa nekkal. sama yaay reewal ma nag man lépp lu ma bëgg dama koy am. France bi ma ci gën a marqué mooy nekk bi ma fekkee sama rakk yaay bi ak copain bi ci salon bi ñoom ñaar ñu toog. série bi li muy wax dafa bari lépp ngi ci biir li mu ëmb dafa dafa bari leen wax euh, ñu xaar ko euh, ak suñu waa équipe euh, technique bu mag bi di Bonlieu Production. salaamaaleykum maa ngi tudd Modou Dieng ñoo gën ma xam ci Momo Saliou. série xel ñaar dafa nekk benn histoire boo xamante ni. Euh, damay bind séquence yi ma gis personnage Momo bi jàpp ni mën naa ko def donc mu nekk benn booy boo xam ni euh, am na dund na ba am vingt cinq ans xamul papaam su ko gis donc euh, muy muy lu metti te mu bëri ci réew mi donc personnage boobu nag mu bëri ay métit ak ay ay ay diis trop may wër sama papa te kut kookut dama ko war a xam donc loolu moo moo moo mooy sama personnage ci ci série bi yi ma marqué bëri na mais du ci man séquence bi ma gën a marqué ci série bi bi Moussa toggee ak wiis ci taal bi di jaaru donc ñu teg ci benn kaaw 3 millions yi donc séquence boobu noonu lu ma lu ma lu lu doy waar ak décor bi ak taal bi et tout loolu hmm. lu ma marqué la. gis nañu ni série la boo xamante ni si euh, mën na mën na mën am lu nekk aussi mun na dem fu nekk parce que écriture bi gis nañ ci lu nekk. nañu ko nañu ko xaar te def ko seen yëfi bopp. ànd ko ak waa Balie production parce que ñu ngi ci def ñoom tamit liggéey bu bu am solo ci côté image ci côté son réalisation boo xamante ni si macha allah lépp dóom na donc nañu ko xaar àndandoo ak ñoom mais de maintenant la ñuy dem ci page bi abonné xaar li nga xam ne moom moo di xel a na torop torop torop torop parce que xam nañ ci dara assalamu alaykum ma ngi tudd zainil sante ba dëkk Guédiawaay gel tapé 2 Sam Notaire er. tel ñaar pour man casting ciblé la euh momo di may wo ne mo dafa bëggoon vraiment mu ñeu participer ci série bi waaw xel ñaar nak ma ngi ci incarner ben rôle bo xamantene euh personnage bi mu ngi tudd lay mais lay gaane bu cool la waaw mom dafa cool calme bëggul daraay problème quoi. séquence bi ma ci gën a marqué mooy euh, séquence bi sama copain Sathie Seck bi ba Wizi ñëw ci entreprise bi ñëw ma koy laaj mu ne saay da ko dóor 3 millions quoi séquence boobu moom marqué na ma trop. xel ñaar moom bëri na ay yeete aussi li ma ci gën a neex mooy euh, ay jeunes kese si nekk ay jeunes yu boole seen doole boole seen xam-xam ñëw pour liggéey pour jéem jëmale seen bopp ca kanam quoi. di wax sénégalais yi xel ñaar moom ku ko dégg war nga xam ni lu doy waar lay doon di leen wax ñu ñu xaar ko ñu ngi ñëw bientôt. banlieue prod. salaam c'est Didi hein, plus connue de Didi Balamaïsa habitante à Dakar 26 artiste chanteuse. Maud Gueye m'avait contacté d'assister justement au, au tournage après ci la ma moo gis intégré ma ci biir série bi. benn jeune fille boo xam ne waga la genre elle connaît tout mën ne dugg génn lijjanti di lijjanti ay business et tout voilà. séquence bi ma gën a marqué séquence bi man ak Momo la parce que c'est vraiment dur euh, d'avoir une famille boo xam ne mosoo leen surtout sa papa loolu moom vraiment de ma part personnelle mënuma ko supporter quoi ça m'a vraiment manqué. série bu bu super cool parce que y a tout dedans ah leçon de vie leçon de morale hmm, éducatif et tout donc. Euh, xaar leen ko parce que dina jàngale lu bare bare bare bare xaar leen ko ci Banlieue Pro et eh, chaîne boo xam ne vraiment dina leen ko jox et tout. salaamaaleykum maa ngi tudd Modou Touba Gueye dëkk Pikine série bii di xel ñaar lan moo ma ci dugal en fait ñun dañu yor benn label bu tudd Banlieue Production yàlla dogal suñu xamante ak moom moo jógee Arco bu Pikine. Euh, ñu waxtaan ci moom mu am projet wu série xel ñaar aussi ñun tamit ñu am matériel bi produire ay film ñu ne pourquoi pas ñu ñu liggéey ak moom ci film bi di xel ñaar après ci biir waxtaan bi noonu moom mu gis ci sama personnage mu ne daf ma ciy tourné loo maa ngi ciy porté rôle daam daam nag dafa presque film bi boo xoolee daanaka li may wax sénégalais yi koy seetaan mooy daanaka lépp benn famille la wala benn gang la gangu bandi yi ci nekk yëpp nag daam moo ko jiite mais pour l'instant nii nii nii may wax ak yow nag daam génnagul ci film bi parce que daam mi ngi prison Cheikh Sarr nga xam ne moom mooy presque acteur principal bi séquence yi mu ci tourné parce que loolu daf ciy jàngale mooy sama classe gi nga xam ne ñun dañoo jógee dëkk ba ñëw Dakar di liggéey Euh, moom mi ñuy jàngal ñuy xam fu ñuy teg suñu tànk parce que Cheikh Sarr am na ñeenti doom parce que ci film bi ñoo xam ne kenn xamu ci sa morom te Cheikh Sarr moo jur doom yooyu yëpp en touru film bi mooy comme moom ñun ñi nga xamante ni bi dañoo dëkk jóge dëkk ba wàlliyaan si pour ut si lu ñu xam tout temps moom ku seetaan film bi di bu ñu dundee vingt ans ci kanam di nga ko regretté série bi di xel ñaar moom wax dëgg yàlla série la boo xamante ne bii euh, damay wax sénégalais yi ñu xaar ko parce que li tax may naan sénégalais yi ñu xaar ko ñuy fekkee série bi dafa bëri ay porte yoo xamante ne bii bu ci nekk rek bokkul ak série yi nga xam ne tey mun naa ne bu ko sénégalais yi seetaanee dina bëri ay critique parce que dañu dañuy ne lii baaxul mais xel ñaar ku ko seetaan euh, dafa may fàttali benn film bu fi amoon bu tudd jiixi jaaxa parce que lépp jàngale la xel ñaar tamit daanaka ñaari tur sax benn la ku ko seetaan tamit di nga xam ne lépp jàngale la quoi sénégalais li ma leen di wax ñu def comme d'habitude rek dem abonné Banlieue Production kenn bañ leen koo njëkk seetaan maa ngi tudd Mamadou sa Diop ñu gën ma xam si papa waaw dëkk Rufisque série xel ñaa li ma si dugal mooy sama xarit bi ñu naan moom moom mi scénariste bi euh, série xel ñaa moom ma woo ne ma am na série bu ñuy tourné ma bëggoon la si jël nga joué tel rôle bon pourquoi pas après si laa ñëw bokk si série bi ma intégré wu si biir bi rôle bu may porté si série bi maa ngi liggéey si entreprise boo xamante ni man courtier laa si mais en même temps donc dealer la damay teg di def na ko sudul noonu di luubal xaalis bi xam nga pour jéem a def sama poche. séquence bi ma gën a marqué ci série bi bokk na séquence bi nga xamante ni euh, kii nga xamante ni mooy américain bi waroon ñëw ci entreprise bi euh, am benn somme 3 millions boo xamante ni defoon na ko ay commande bi ma gisante ak moom bon dama ko teg xel waaxu ko. fexe ma dóor ba jël 3 millions chèque bi récupéré ko li xeen ñaan na nekk na série bu am solo macha allah ñu ngi koy rafetlu parce que liggéey bi rafet na et puis donc réew mi buñ ko seytaanee dina leen jëriñ ak xale yi nga xamante ni mooy nouvelle génération bi surtout dina si ma sa mën a sukkandiku donc ñu mën si am ay jàngat yu baax bientôt donc dina daw fii nga xamante ni moom mooy banlieue production ñoom tamit mention spéciale franchement def nañ si liggéey bu am solo liggéey bu rafet donc waa banlieue production ñu ngi leen wax chapeau à vous salaamaaleykum wa rahmatullah maa tuddu tudd Ndiaga alias Wizi euh, maa ngi dëkk Guédiawaye Sadam lu bari. ni ma def ba intégré ci xel ñaar moomoo ñoo dëkkoon euh, premier jour seen tournage la ma gis mu woo ma imposé ma rôle ne ma dama bëgg nga ñëw gérer ma rôle bande bi ma nekk ci bande boo xamante ni si fii laa newoon sama grand Moïse yaroon ma ma màgg yàlla dimbali ma ma dem États-Unis ñëw bëgg a changer vie mais nag malheureusement comme bande bi sama deret la ne mënut a changer ma nekkaat ci business bi comme dab séquence bi ma ci gën a neex mooy bi ma paap dóoree samay 3 millions ba yàlla def ñu daje comme tànk si suuf jaan ci suuf yàgg-yàgg dañuy daje ñu daje bi ma ko poñee noonu di ko jaay rek série bi di xel ñaar dafa nekk série boo xamante ni si tey jii nii boo toogee di ko seetaan ci li ngay dund dinañ la ko wan yow mi nga xamna ñak nga papa di wër gisagoo gogo bo toogee gis moomoo di développer dina la toucher man bok lima ma jot gis nani, ni nit ku ci nek rek maam am aduna nim nim mu doxé dal lañ ko teunké pour pour vrai dire quoi. sénégalais lima li di wax moy bu len xalat daw len banlieue production ngeen dem abonné fofu